spoliation foncière bi nga xamante ni mi ngi am parce que gàddaay ak euh, Ndingler peut-être ñoo ci gën a siiw waaye bu leen fàttee Guéréo ci la bokk Kignanbour ci la bokk Djilakh ci la bokk buggu ñoom ñëpp dañoo am ay problème suuf bokk na tamit ci problème yi nga xamante ne dajale nañu fi tey muy le droit des travailleurs yi nga xamante ne kenn respecté wu ko ay liggéeykat yoo xamante ne dañoo salfaañe seen àq ak seen yelleef mën nañu lim les travailleurs euh, bu ABS mën nañu lim wa PCC yi mën nañu lim les travailleurs de l'autre à yi nga xamantene ne seen àq ak seen yelef ken respecté wu ko bobu ba légui mën nañu lim également ñi nga xamantene ñoy étudiants yi seen situation ba légui ken réglé gu ko muy ñu nekk biir UVS muy ñu nekk ISEP bu Diamniadio muy les le cercle des étudiants du privé ñu toll ci quarante étudiants yo xamantene

ah dinañ gennat ci mbedd mi suñu nakar pour que nga mëna jël li nga question yi en charge lolu mo waral d'ailleurs lundi bi ñu weesu ñu yebal suñu ñetti ndaw ne au niveau de la préfecture de Dakar déposer une lettre d'information parce que nous sommes dans un état déclaratif il fallait que nous déposer lettre d'information Bob. waral suñu camarades yi fa pour déposer lettre d'information bi pour marche bi nga xamante ne ngi koy wacc vendredi bi di ñëw gannaaw suba yemook fukki fan ak ñent ci wéru août bi ñu nekk itinéraire bi nak ni lay demee buntu grande porte bi université Cheikh Anta Diop de Dakar la ñuy commencé wee jaar fi nga xamante moy siège OMVS jóge fa jaar fi nga xamante moy siège orange bi nekk ci kaw VDN bi Dieu fa jaar fi nga xamanteni moy mooy siège UVS bi nga xamanteni mo top juste ci siège orange bi waye tamit avec comme point de chute manam jeexalee ko ci fi nga xamanteni moy le ministère de la culture. ci kaw loolu ci kaw déposition après déposition bobu nga xamante def nañ ko ci euh, pour marché bu ñu wara amal demb suñu ndaw signataire yi nga xamante ñoo signé woon lettre boobule wolu nañ leen woon ci commissariat bu point E pour enquête. Euh, bi nga xamante ne enquête moom la wax enquête euh, de routine pour ñu amal ko foofu te am nañu yaakar ni marché bi aut dinañ ko autoriser te autoriser nañ ko sax parce que ba jotagu ñu bénn notification bu ñuy won ni marché bi dañ koy interdire maintenant problème yi nga xamante ne listé nañ ko fi sank ñun wa ar luñu bok ñun wa ñoo ñun wa doyna ñun wa front national pour le progrès des étudiants du Sénégal problème yi ñu listé sank état du Sénégal su du jurul ay saafara digënté tay suba bala marché bi di ñëw gisunu lu ñuy téré def marché bi le vendredi prochain à partir de 15 h jógee fi nga xamante moy la grande porte de Lucat avec comme de chute devant le ministère de la culture.